dal te leen jàmm ci li gën a fës yëglekaay yi ñu commencé kook les éco yéenekaay bi desuwaat ci conseil des ministres bi nga xamante ni président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ci mesure yu rëy yéenekaay bi di xamle ne coono askan beeg jafe-jafe yi ñu dun dund lenn lu ci nekk nag président de la république jël na ci mesure bokk na ci nag du dugg cher bi nga xam ne nee na nañu ko saafara ci na mu gën a gaawee luyaas nga xamante ni tamit cher na emploi des jeunes fenn fu nekk laa la wax président Bassirou Diomaye Faye jël na ci mesure ba jàpp ay date yoo xamante ne nii sàkku na ci ministre ñu respecté ko ko ngir askan bi mën a commencé sentir ay solution nag ci seen jafe-jafe yéenekaay bi ne conseil des ministres bii koy jëlaale nañ ci sax ay mesures laa la wax mesure financière ci victime manifestation yi fi amoon diggante janvier 2021 ba jàpp février 2024 ndàmpaay yi dina tàmbali ci képp koo xamante ni da nga ci nekkoon victime te li ni mel nag président de la république sàkku na ci premier ministre Ousmane Sonko mu taxawal ab kuréel guy def recensement yi ñu a jox nag ndàmpaay képp koo xamante ni victime nga woon ci manifestation yooyu bu dee projet bu Pastef nag application yi du léegi lay tàmbali yi il faut que ñu mayegum nguur gi nag fii ak juróomi weer yéenekaay bi def taxaw seetlu ci coppite yi nga xamante ni nii commencé nañ koo gis de ci yenn ci ay direction ndax bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi président Bassirou Diomaye Faye daal raxas la doon def jël saab ak ndoxam nag direction yépp mu jël mbomb di bomb raxas ba mu set wecc ci képp koo xamante ni yaa ngi ci système bii ñu génn président Bassirou Diomaye Faye teggi na la fa jël nag équipe bu bees tàq ña ci ëpp di ay ndaw dugal ci biir direction yooyu yéenekaay bi ne teewul ñoom gouvernement bi waxuñu woon loolu de liñ ñu waxoon ci seen projet bii moo di direction élection yooyu appel à candidature lay doon te jii li ñu gis ci conseil des ministre bi ñu génn mooy dafa mel ne dañoo fàtte promesse boobu commencé def partage du gâteau yéenekaay bi ne booy xool général Moussa Fall mu jéenañ ko viré Pape Alé Niang ñu jox ko RTS Waly Diouf Bodian ñu dénk ko port Fadilou Keita mi jiite woon nemmeeku tour ñu jox ko caisse de dépôt et de consignation surprise bi nag moo di Cheikh Bamba Dièye moom la ñu dénk léegi aéroport international bu Blaise Diagne Cheikh Tidiane Dieng ñu dénk ko ONAS Vox Populi ne kaay ma président Bassirou Diomaye fay comprendre na ne pour seen projet bii mën a am nag njeexintal ci askan bi faaw ñu changer yenn direction yi de tactiquement laa la wax équipe bi fi nekkoon dégagé nañu leen jël seen système bu bopp système bu leer jël ay xale dénk ko direction yi compétence nag la ñu jiital yéenekaay bi ne lim ci direction yi ne RTS jox nañ ko Pape Alé Niang CDC ñu dénk ko fa Fadilou Keita port autonome bu Dakar ñu dénk ko Waly Diouf Bodian APEX ñu dénk ko Bakary Sega Bathily Cheikh Bamba Dièye ñu dénk ko AIBD docteur Cheikh Dieng moom la ñu dénk ONAS Abdou Gningue bi nga xamante ne ni inspecteur impôt et domaine la moom la ñu dénk léegi laa la wax direction des domaines poste par poste responsabilité par responsabilité ay kilifa yu mag ñu am xam-xam la président Bassirou Diomaye Faye mii tànn dénk direction yi nga xamante ni bu ñuy xool ci nguurug Macky Sall ri na coow lool de yéenekaay bi ne moo xam poste SICAP SNHLM pôle urbain de Diamniadio SAPCO ak yeneen i administration fi mu toll nii njiit ga changé nañu ko yéenekaay bi ne kaay ma limal la ñu doon liggéey ci jamonoy Macky Sall yoroon yenn poste de yi dañu dàq leen fi mu toll ñii ne tàmbalee ko ci Diène Farba Sarr dàq nanu ko Racine Talla dàq nanu ko Cheikh Issa Sall dàq nanu ko Mountaga Sy dàq nanu ko Abdoulaye Dièye dàq nanu ko Abdoulaye Balde dàq nanu ko Mamour Diallo dàq nanu ko Souleymane Ndiaye daq nanu ko Mohamed Diaité dàq nanu ko Diagne Sy Mbengue dàq nanu ko Mamadou Kassé dàq nanu ko Mamadou Gueye des Domaines dàq nanu ko ñii ñooy première victime laa la wax ci nguuru Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi ne président de la République du mesure conseil des ministres bii ñu génn ndax jàpp na ne coono askan bi il faut que ñu teggil leen ko te bokk na ci xiif ak mar gi ñu nekkee luyaas bi président de la république daal di dénk nag premier ministre ne ko ci na mu gën a gaawee taxaw leen ci soxla askan bi jox leen date nag ne avant le 15 mai nañu fexe ba dund bi ñu wàññi ko moo xam ceeb nañu ko wàññi suukar nañu ko wàññi diwlin nañu ko wàññi fariñ bi nañ ko wàññi meew nañ ko wàññi ba ci mburu mi laa la wax lenn lu ci nekk moom président Bassirou Diomaye Faye sàkku na ci gouvernement bii na ñu jaat ci jël ay mesures balaay la 15 mai bii di ñëw dund gi daal di wàññeeku askan bi mën a am jàmm condition yi war a tax nag dund gi wàññeeku lépp état bu Sénégal gi jël na ko ba noppi leneen li yéenekaay bi desuwaat tamit moo di jeunesse bii nga xam ne war na noo am liggéey président Bassirou Diomaye Faye jàpp na ne toog muy dox léegi jeex na moo tax question emploi des jeunes bëgg na ci amal conférence sociale boo xamante ne nii dana jàkkaarloog jeunesse bii ngir waxtaan ak ñoom ngir ñu trouver ay solution nag ci seen wàllum xëy ndaw ñi nga xamante ni victime lañu woon ci yi amoon depuis mars 2021 ñoom ñëpp nag fi toll nii président de la république sant na premier ministre mu taxawal kuréel goo xam ne danañ ci def recensement ngir mën a xam ñan ñoo ci loru ci manifestation yooyu directement wala indirectement ñoom ñëpp ñu jox leen ndàmpaay yéenikaay bi ne ci conseil des ministres bi itam sentir nañu ne président Ousmane Sonko jamono ji ngi waajal déclaration de politique générale am ci assemblée nationale yéenikaay bi ñu xamal ne premier ministre moo dénk leen réew mi journalu ma jambal jàngi nee ñi pareeguñ ci de projet bi laa la wax mu ngi en chantier yéenekaay bi ne ci conseil des ministres bi gouvernement bi mu ngi xamle ne pour que sénégalais yi mën a commencer sentir njeexintalu projet bu Pastef il faut ñu nag fii ak juróomi weer maanaam ci début atum ab commission la taxawal boo xamante ni expertise locale bi moom lañ ciy farataal de premier ministre ci boppam nag moom moo koy coordonné nii bokk na ci ministère yi nga xam ne ñoo ngi leen di séentu ci comité boobu ministère bi ñu dénk wàllum plan ministère de finances et de l'industrie ministère bi ñu dénk wàllum souveraineté alimentaire ministère bi ñu dénk wàllum emploi ak transformation secteur public ba ci bureau organisation et méthode ñoom ñi ñëpp dinañ nekk ci comité boobu nga xam ne ñooy jéem a dëppale projet bu Pastef bii ak solution yu ñu war a njëkk a régler ci biir réew mi yéenekaay bi dañu xamal ni travaux yi nag président de la république na ñu tàmbali ko ci gaawee buñ ci noppee nag indi ko conseil des ministres validé ko commencé koo appliqué projet bu Pastef bii yéenekaay bi du xamal ne première phase bi war nañ commencé di sentir réalisation yi te ci projet de loi des finances bi nga xamante ni war nañ koo yóbbu ci assemblée nationale application projet bu Pastef bii danañ ko ca sentir nag ca projet ba te yàggatul nañu yóbbu ko ci assemblée nationale ci début mois d'octobre bi ñu jëm ci lañ ko fas yéene présenté député yi bés bi le jour moom def taxaw seetlu ci nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye bi mu doon ni dafa ndax contrat bi nga xamante ni séqoon nañu ko laa la wax ñu dakkal ko ndax président Bassirou Diomaye Faye li mu seetlu mooy dafa bëri retard te bu nu moytul exploitation gaz bi danañ xaaraat da ba 2025 lii moo tax moom président de la république bëgg a liggéey nag ak président bu Mauritanie def benn bloc ngir mën a changer stratégie pour ñu mën a exploiter gaz bi balaa muy gën a yàgg ndax BP respectewul ba léegi si engagement am yéenekaay bi desuwaat ci nomination yi nga xamante ni seetlu nañu ko nit tax ñu bokk ci biir Pastef général Moussa Fall moom mujjee nañ koo tëbal jël Martin Faye dénk ko nag gendarmerie ab alañaa ñu dénk ko RTS Fadilou Keita la ñu jox léegi caisse des dépôts et de consignation Waly Diouf Bodian ñu dénk ko port Bakary Sega Bathily moom lañ jox APIX Cheikh Bamba Dièye AIBD docteur Cheikh Dieng moom la ñu dénk ONAS Abdou Ngingue ñu jox ko domaine yéenekaay bi def taxaw seetlu ci général Moussa Fall lan moo tax ñu daat koy teggi nag ci bopp gendarmerie source a ci xët bu yaat na général Moussa Fall kay manifestation yi fi amoon ci atum 2021 jàpp 2024 moo tax fi mu toll ni ñuy tegi ko ci bopp gendarmerie de ci xayma rek yéen bi xamal nañu ne Amnesty International nee juróom fukki ak juróom benn ñàkk nañ ci seen bakkan lu jege 1000 blessés juin lu mu néew néew doomu sénégalais yu bëri nag ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yi li ci ëpp dañuy wax ne ci manifestation yooyu ay bal lañ leen tiiree diggante Ziguinchor ak Ndakaaru rek ñaar fukki ak juróom ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan ci mois nañu ne général Moussa Fall mii li tax ñu dàq ko bokk na ci la xewoon ca diwaanu Ngor am na ca benn xale bu jigéen boo xamante ni fukki at ak juróom kese la amoon doon wuyoo ci turu Aji Diallo nii lañu ko dóoree bal réel mu daal di ñàkk bakkanam ci defante goo xamante ni moo nekkoon diggante population bi ak gendarme yi boo ci boolee fukki ndaw ak ñeent yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci fan yi ñu génne amul benn information judiciaire bu ñu teg ci table bi te nee nañu fukki ndaw ak ñeent yooyu ñàkk seen bakkan fukk ak ñaari bal réel lañ leen tiire nag ci seen kaw ba léegi si amul dara benn information judiciaire buñ ci bi ne lii bokk na ci li tax président Bassirou Diomaye Faye teggi général Moussa Fall tegee na le jël Martin Faye nag dénk ko gendarmerie yéenekaay bi ne te président de la république nag yemul foofu de bëgg na ci na mu gën a gaawee nag dossier yi ñu daat koy lijjanti ñu ñàkk seen bakkan nag yoon daal di tracé ñu mën a xam ci loxo ñan lañ ñàkkee seen bakkan teg yooyu ñu jël ay ndàmpaay jébbal ko sa famille décision bi ne mel nag jël nañ ko ci conseil des ministres bi de waaye xamante ni bëgg nañu yenn ci ay marché ñu jébbal leen ko moom président de la république nee na nag ay condition la am te bokk na ci condition yi képp ku ci luubal benn marché dana la yóbbu ci yoon beneen condition bi moo di boo leen bëggee ñu jël entreprise étrangère yi tegee na lee jël privé national bi nag di leen jox suñuy marché il faut que ngeen di respecter délai de livraison wu chantier yi mu ànd ak qualité ba noppi na ngeen jël jeunesse bi comme main d'œuvre lii daal boo leen ko respecté ñun état bi amuñu benn problème président Bassirou Diomaye Faye di xamal secteur leen jox sax ay marché waaye am cër ca UEMOA le point actu def taxaw ci diggante président Ousmane Sonko président Macky Sall ba amoon ca biir kaso ba yéenekaay bi mu ngi xamal ni commencé naa am ci a am diggante benn attaque boo xamante ne nii nguur gi ko def contre président Macky Sall bi yemu ca ndaxte mu ngi xamal ne preuve bi rek moo di changement bi am ci communication wu Abdou Mbow diggante bi muy attaqué nguur gi ak diggante bi ñuy soppiwaat seen waxin presque benn la lii day firndeel ne dialogue ba séqoon diggante président Macky Sall ak Ousmane Sonko mi ngi indi ay meññeent de yéenekaay bi ne gis nga loi de finances rectificative bi nga xam ne ñoo koy xaar ci assemblée nationale day jàll de day jàll comme lettre à la poste ndax président Macky Sall fa mu nekk ca bitim réew moo ngi contrôler relation ni moom ci gendarmerie domaine port ak CDC AIBD poste RTS ba ci SICAP SNHLM SAPCO pôle urbain de Diamniadio ba ca ONAS yéenekaay bi di lim équipe bu bees bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye Faye jël remplacé kook ay nitu Macky Sall ne général Martin Faye ca la bokk Abdou Nying ca la bokk Pape Alé Niang ca la bokk Bara Diouf ca la bokk docteur Cheikh Dieng ca la bokk Waly Diouf Bodian ca la bokk Bakary Sega Bathily ca la bokk Cheikh Bamba Dièye ca la bokk Fadilou Keita ca la bokk Maguette Kane ca la bokk Bassirou Kébé la bokk bokk Serigne Mamadou Mbuub ca la bokk Marie Rose Faye ca la bokk mesure yu nguur gi jël tamit bokk na ci jox ndàmpaay képp koo xamante ni victime nga woon ci manifestation yu ñu génne depuis mars 2021 moom président de la république nag sàkku ci premier ministre mu taxawal kuréel goo xam ne dinañu mën a xam ñan ñoo ci loru Amnesty International di ko jox chiffres yi lu jege 1000 jeunes nag am nañ ci ay blessé mbokk yi continué leen di abonné di Mourchid TV tey a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar yéen doog jàmm ba suba